ñu wax euh, naka quand même le le le le chef de l'État parce que quand même di rappeler waat Papa Salam ni bu feebar bi ñëwee dafa ne moom fàttewul sénégalais de la de la de la de la diaspora ba nga xamante ne jël nañ ci xaalis xaalis boobu nag dafa rafet ñu mën a xam ndax ñëpp jot nañu wala ñëpp jotuñu ak ñu xam ndax recensé nañ sénégalais wala recensé wuñ leen mais loolu am importance la ndax ndaak foo tuddee xaalis rek xel yaa ngi commencé ñaaw mhm. donc leeral dafa am solo mhm. xaalis bi fan la jaar naka lan ko départagé. Mhm. jox lan ko askan bi mhm. ba xam ñii jot nan ñi ko yelloo jot nan wala jotuñu. Mhm. loolu lu am importance la. kon nag ñu fas yéene dugg nag suñu pàcc. parce que am na góor yoo xamante ne macha allah jël nañ seen jabar yóbbu toppatoo leen bitim réew. Carlou yaa ngi may dégg bu baax. 5 sur 5. voilà ñooñu dañ leen di san di leen gërëm parce que am na ñoo xamante ne dañuy def 50 50 naam sax à l'étranger peut-être nekkul lu aay waaye comme ñu ñu xam rek Sénégal jigéen jigéen léegi day takk day takk sërëm dem liggéey waaye waaye lislaam dafa ne euh, góor moo war a yor jigéen ba nga xamante ne jigéen bi lu mu am rek na xam na xam daanaka affaire am la daal bu nekkee jëkkëram jëkkëram baax na du ko teg bët yow kat yi tey lan mooy sa xalaat ci loolu. waaw nag euh, man loolu sama ci laaj dinaa ci sa war a wax parce que euh, ki ma doon denc mu nekk Europe ma koy nuyu de passage. mu nekkoon nit ku baax wax dëgg yàlla euh, dama man bi ma ñëwee Europe bi ma fa dëkkee laa comprendre que ni ñu si bëri. dañuy liggéeyloo seen njaboot di leen la cinquante cinquante peut-être mun na nekk parce que am na ñoo xamante ne tey jii euh, mu nekk ñaari loxo. mooy mhm. gën a yomb ci seen dund ko mu nekk benn loxo. Mhm. mais man euh, ki ma doon denc ma noon sëy ak moom wax dëgg yàlla ba ma daan dund ak moom li mu ma daan xelal mooy liggéeyal fayoo facture. fayoo ndox fayoo courant fayoo dara. am na góor yu baax am na góor yu baax wax dëgg yàlla man moom ma koy nuyu de passage te euh, nit ki nga sëy moom rek warul tax tamit doo wax lu baax ci ginnaawam voilà baax vraiment ndaak donc euh, tey ma koy nuy depassage bu baax a baax a baax euh, Babacar Charles Ndoye di nuyu aussi sama doom bi nga xamante ne mi ngi foofu aussi nekk émigré Mohamed Fadel ndooy ma koy nuyu bu baax a baax a baax euh, ndaak nekk Europe metti na mettiwul mm. tout dépend rek si ki nga nekkal mm-hmm. ki nga nekkal su fekkee ne dafa la woye fa lépp donc dara du di si yow mm-hmm. dama fa nekkoon di fa liggéey di gañal sama bopp te lu ma am sama poche lay dugg mm-hmm. gis Cyril euh, Omoro wax sànq ci laay ñëwaat Omoro dafa ne euh, jigéen ñi aussi nañ wàññi dépense bi. Mhm. mais ndax euh, est-ce que jigéen ñi aussi kese ñoo war a wàññi dépense bi parce que. tey ji dama koy laaj xale yi. voilà mhm. <laughs> après. xale yi waaw waaw waaw waaw. Ah, pelloo leen ko ah, nañ ko pelloo bu la dara metti. yow waaw dama ne est-ce jigéen ñi kese ñoo war a wàññi dépense bi parce que ndax attention am na jigéen ñoo xam ne ndax. dañuy liggéey liggéey bay bëgg a dee <laughs> jël xaalis bi denc ah. góor ñi yolleeku ko ci ginnaaw ah. rocci dem defi li sa beneen moromu jigéen ah. cëm deuxième thème nga ca léegi nag voilà yow euh, évasion li mu wax am na solo bamtuwaatal li nga wax dama waaw am na jigéen ñoo xam ne waaw dañuy liggéey liggéey bay bëgg a waaw denc waaw góor yollee nànk ci suuf rocci dem defal ko seen borom moromu jigéen dañ koy takkee jabar évasion naka nga ah, gisee ah, papa salaam ah. amee nag yéen yéen man ah? loolu bomb la de. seen morom loolu bomb la de. lii dafa doy waar. non non non seen morom boo xam ne chaque fois. mais am na fi yow dafa mel ci yàlla l'esprit revanchard yow kat. am ubbil téléphone bi. à chaque fois bu ñuy wax ay affaire jëkkër. <laughs> da ngay jël benn affaire féetewul la ko sa bopp ni góor yi góor yi yow yow. mais li mu xam ne de man daan na wax daal wax boo wax boo ko waxee rek nit ki gis si boppam ça veut dire. ndax man maa ngi génn sa plateau parce que dama gis ko toroxal góor yi à chaque fois bu waxee ci gis sama papa salaam. père toogal ëpp naa def baal ma dem rek. waaw dañuy waxtaan nañ leeral